ñu jàll waxtaane droit ak may euh, Maimouna Gueye Bambalo euh, li euh, Sénégal maye ci wàllu droit ci li ñu tuddee don d'organe la ñuy waxtaane tey na voilà Pape Cheikh mu li nga xamante ni moom lañ tuddee transplantation d'organes et de tissus humains mu nekk loo xamante ni euh, article 2015 22 du 8 septembre 19 du 8 septembre 2015 moo ko régir ñu demoon nag seeti ki nga xamante ni moom mooy Matar Ba chef bureau législation bu bureau euh, ministère de la santé moom indil nañu ci ay leeral wax ñu aussi nan la ñu euh, encadrer loi boobu nañ ko déglu dellu si waat plateau bi. voilà ñu ne élément boobu tamit euh, paregul n'est-ce pas <laughs> paregul euh, donc don d'organe en tout cas euh, kii nañu def nañ ci ay jéego yu am solo. si ay jéego yu am solo moom euh, bu fekkee élément bi pare na si kanam ñu ñu seetaan ko mais sinon ce qu'on peut mooy ni ko déjà dafa ni am na loi boo xamante ni 8 euh, décembre 2015 lañ ko voté mu nekk loo xamante ni dafay permettre li nga xamante ni mooy transplantation d'organes et de tissus humains loolu nag Pape boo ko déggee mooy euh, maladie yi nga xamante ni dafa nekk des maladies à soins coûteux mu nga xam ni day fatiguer malade bi benn cher na ba pare physiquement malade bi du ko attan léegi permettre nañ su ba nga xamante ne organam boobu noonu dafa yàqu wala boog euh, dafay limiter li nga xamante ni mooy espérance de vie am te mu am koo xamante ni mën na ko may organe euh, loi bi permettre na ko mais euh, permission boobu ñu si joxe nag dafa am benn cadre boo xamante ni moom moo ko encadré c'est-à-dire organes yooyu kenn du ko jaay donc il faut mu nekk don et que ça soit réellement euh, gratuit euh, il faut aussi bu ñuy def donc bi euh, fi ñu koy jëlee maanaam fi ñuy defee prélèvement mu nekk si nit kuy dund mhm. donc mënuñu def prélèvement de don d'organe si koo xamante ni dafa gaañu à une exception près mooy li nga xamante ni moom mooy cornée cornée mu ngi koy expliquer mooy affaire bu weex membrane bu weex bu transparent bi nekk ci kaw bët boobu noonu su fekkee nit ki gaañu na boobu permettre nañ ñu def si prélèvement pour mun ko defaral keneen mais dañ koy asseoir ci benn décret présidentiel boo xamante ni mooy autoriser ñu def euh, li nga xamante ni moom mooy prélèvement boobu. aussi prélève euh, don d'organe bi dafay am après ay hôpitaux yoo xamante ni ñoom la ñuy agréé moom ñoom ñoo koy mën a def c'est-à-dire du foo dem rek mun ko def donc état bi dafay am li nga xamante ni moom mooy benn conseil bu ñuy teg. Euh, muy réguler li nga xamante ni moom mooy euh, don d'organe yooyu ñoom rek ñooy mën a def prélèvement yi ñoom ñooy mën a def aussi li nga xamante ni moom mooy transplantation bi loolu moo tax na dafa am benn comité boo xamante ni moom la ñu mettre en place comité boobu ce sera euh, composé de douze membre membres yi dina am li nga xamante ni moom mooy ay magistrats dina am li nga xamante ni moom mooy sept professeurs de droit Euh, dina am ay magistrat dina am ay droits de l'hommiste dina am aussi ay médecins et biologistes ñu toll ci set am aussi ay spécialistes euh, ministère de la santé ñooñu noonu nag ñoom ñooy yor comité bi yor conseil bi donc su fekkee da nga bëgg a def don da ngay dem ci ñoom nga def demande bi ci agence boobu soo defee demande bi ba pare nag ñoom ñu étudier demande bi xool la nécessité de faire cette transplantation après ñu joxe autorisation bi ñu joxee autorisation bi aussi dafa am processus boo xamante ni ñoom ñoo koy euh, teg en place donc organe boobu nag Pape Cheikh moom lañ nekk euh, di di constituer mm. donc effective agul donc bu organe boobu ma wax nga xamante ni douze membre yi ñoo fi nekk suñ ko mettre en place mm. après nag ci la ñuy commencer képp koo xamante ni da bëgg a def don euh, da nga bëgg a am recevoir organe nga dem def demande bi mais il faudrait aussi ki lay may def lettre boo xamante ni moom dafa consentir à may la organe am donc nag boo gisee ñu ne si ku vivant lañ koy def saa veut dire que am na yu bëri yoo xam ne kenn mënu ko def Sénégal parce que organes yi nga mën a jël si nit te mu vivant bëriwul. Hmm. donc mu am ay organes spécifiques yoo xam ne peut-être moom lañ si ciblé. aussi li ñu mën a retenir mooy ku amul 17 ans mënoo maye or euh, organe. donc il faudrait nga nekk majeur. ba pare euh, ñu certifier que ni que yow li nga xamante ni moom ngay jëlee ci yow di ko maye jaayoo ko. Hmm. et que aussi nga nekk nit boo xamante ni da ngay dund ba cher. voilà parce que il faut mu am surveillance ci hmm. dëkk yu bëri. dafa am euh, ay trafic. sax yuñ ci amal. ay nit yu a ay nit di leen rey wala di euh, euh, di ko def de façon euh, bu baaxul di leen fay ci suuf mm-hmm. di jël seen ay organes di ko dem di ko jox ñeneen ñu am moyen moo tax c'est bien de mettre en place dispositif bu baax boo xamante ni dina am sécurité mm-hmm. mu ngi koy mu ngi naan droit mm. doon wax sax si le fait que ñu mënuñu ko def si koo xamante ni dafa gaañu mm. parce que dañ doon bañ loolu ay nit yoo xamante ni dañu gaañu ñu jël seen ay doon yi daf ma ko mayoon wala daf ma ko di te alors que gaañu consentement bi dina xaw a mm. doy waar pour nga mun ko euh, prouver mm. euh, aussi looloo tax ñu réglementé ko c'est-à-dire kenn mënu ko jënd mm. di nga gis ñoo xamante ni dañ naan dañuy jënd organe am na ay dëkk yoo xamante ni am na mais looloo tax Sénégal ñu encadré loi bi pour def ko noonu aussi euh, du n'importe quel hôpital moo ko mun def dafa am moo leen koy def ak li nga xamante ni moom mooy conseil boobu foofu rek nga ko mën defee donc nekkul clinique nekkul yeneen donc dafa am ay hôpitaux agréés yoo xamante ni ñoom rek ñoo mën a def prélèvement ñoom aussi rek ñoo mën a def li nga xamante ni mooy transplantation bi Pape Cheikh voilà donc peut-être bu élément bi pare euh, dinañ leen ko woon mais dafa defoon nga ci euh, ab gëstu heureusement ba euh, jot nga ci commenté lu ñu mën a dégg mais on vous montre certainement bu ñu amee jot bi euh, élément bi nga xam ni def nañu ko jëm ci li yoon may fii ci Sénégal jëm ci don d'organe 9h47